tisbaar 13h09 takkusaan 16h19 timis 19h30 gée 20h35 la ñu koy julli Oustaz Modou Fall ñu baaxee euh, téléspectateurs yi naa fi la bis bi. jërëjëf El Hadj maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi ñëpp di nuyu suñu jigéen ñu baax yooyu di nuyu Oustaz Pape Anne waaye itam di nuyu Oustaz Assane Seck. di bëgg lool ci bokk ak ñoom jotaay bu mel nii rawatina guddi gii nga xam ni moom lañu ñu jagleel Serigne kër si radiyallahu taala anhu tey guddi gi ziar général la. waaw tey moom ziar général la Alaaji Pape. xanaa neex na tey <laughs> final. tey final la Alaaji Pape moom final la moom. <laughs> tey moom borom ziar général la ñuy waxtaane. wallaahi. Alaaji naa naafila bi nag tey mi ngi nekk fukki rakaa. Mm. war a nekk juróomi sëlmal raka bu nekk da ngay jàng fatiha jàng inna anzalnahu fi laylatil qadri waaye itam jàng qul huwallahu ahad ñetti yoon fukki raka lay doon juróomi sëlmal gannaaw fatiha bu nekk nga jàng ñetti inna anzalnahu ci première raka bi deuxième raka bi itam nga jàng ñetti qul huwallahu ahad ni ma koy waxee bis bu nekk naafila moom alaaji pap sunna la boo xam ni yiw daf ci nekk ndax julli la boo xamante ne bii bokkul ci say farata. Mm-hmm. bu jullit bi defee ay farataam ba pare la muy def te yàlla gàll ko ci kawam loolu mooy la li ci nekk ci ay yiw bari looloo waral sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan naafila alaaji pap ba ay tànkam di néewi bu nu ko laajee loo ca jublu mu ne damaa wërta nekk jaam buy sant yàlla ndax li ma yàlla defal lépp man sayyiduna muhammad mm-hmm. kon fokk may def ay naafi la jublu ci sant yàlla looloo waral koor gaa ngi dem waaye nag jaamu yàlla gi mu ñu fekkee ñu nekkoon ci gën koo yokk même bu koor gi jeexee it alaaji pap bu ñu ko bàyyi ndax boo déggee yàlla naan laallakum na mën na am bu koor gi jeexee bàyyee leen ragal yàlla am na jëf yu baax yu ngeen di def ci weer wi su koor gi jeexee bu leen ko bàyyi parce que jaamu yàlla amul période yenn saa yi it pap nga gis jigéen joo xam ni dafay dem ba koor gi di waaj a jeex koor gi de cinq jours wala quatre jours fekk lu ko jiitu dafa gis baaxam mu toog ba set bi mu setee ñu ne koor gi trois jours a ci des mu ne tàyyee naa umaat man wori naa benn yoon ah bon loolu bàkkaar la kenn du ko def kenn du ko def kay mais am na ñoo xam dañuy tàyyee umaat parce que comme comme set nañu te koor gi deux jours a ci des wala trois jours a ci des ñu ne tàyyee nañu umaat ah bon dañuy jël trois jours yi des boole ko ci seeni bor yi nu amoon loolu baaxul loolu nag tayeef la mhm. te lépp loo def ci tayeef sunu boroom du la ko jéggal mhm. loolu tam ñu bàyyi waat ko xel bu baax a baax a baax ñu ci <coughs> encouragé waat suñu mbokk jigéen ñi comme koor gi bor yu ñu ci am dañ ko war a fay julli gi bor bu ñu ci amit jéggal nañ leen ko mhm. xam nga yàlla dafa bari yërmande tey jigéen bu gisee baaxam fan yi mu dul julli du ko fay ah bon déedéet yow yàlla mii baax na de moom daf leen yombalal lépp gratuite oh là loolu kay gratuite la moom. <laughs> gratuite la alaaji Pape <laughs> bu dee koor gi moom. su jàllee da nga koy fay. <laughs> Uh-huh. kon naa fi la bis bàngoog ñu dem ci laaj yi incha allah macha allah allez ñu enchaîner ak euh, première question bi euh, jox ko Oustaz